أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ñu dellu sant yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal mbokku téléspectateurs yi bu baax a baax baax delluwaat di leen nuyu di leen wax ni macha allah maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ndax nit ki amul lu dul ki ko bëgg te xam naa ne bëgg ngeen ma bàyyi ngeen ma xel kon yal na yàlla gën a yàggal ànd bi te gën ko rafetal may nuyu bu baax suñu kilifa diine yi di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla may gudd fan ak wér waaye ñi jiitu yàlla na leen yàlla xare àjjana ñoo ñañ fa fekk ak ña leen fa fekk ñi ñaanal yàlla ñi ci hôpitaux yàlla yàlla fëgg seen bopp waaye ñi caabi féete ginnaaw yàlla na leen yàlla génne may nuyu bu baax waa bitim réew di leen wax ni kenn mënu leen fay Mangin ngi ñaan ci kàttanu yalla ak di wax nama ko daan waxe kep ku wuti rek tax kep ku teral say bokk rek tax yalla la yalla may loko teralé terale soo ñew yalla la ñew bu yomb lool may nuy bu baax waa Espagne di wax ñi Awa ma ngi lay bu baax ah nga nuy ma sama fans yoy fa nek bu baax baax may nuy bu baax baax sama dom ja nga xamni ma nga Canada di Adama dukuré mang koy nuy bu baax di ko ñaanal yalla du kuré lu mu ragal yalla bu mu ko gis moo soxnam su baax sam fa nekkal yalla bu ngeen yaqku yalla bu ngeen le ngeen nuy ma bebe mohammed bu baax euh tay nak damay massaw bu baax ñi nga xamanteni ñu ngi leen di faat seeni mbokk lay massaw fan yi li xew ci rew mi tang na lol ta metti te alalu aduna rek mo tax def wala nguur yépp bu ñu wëlbatikoo ci alalu àdduna rek lay mujj ndax nguur gi xëccu xëccu bi xam naa ne alal jiñ fi dégg rek la moo tax ñuy xëccu nguur gi waa léegi bu jaree ñuy faat nit ñi di teg jaaduwul jaaduwul loo xam ni boo lëggee bu la ko suñu borom laajee doo xam loo koy wax yow ci lay yi ngay mujj te loo koo xam ne boo jàkkaarloo moom loo nar a wax xam na ko loo bëgg a wax xam na ko kon war ngaa seet li ngay def fii ci kaw àdduna bu baax a baax ndaw si ñu faat bu yàggul ah, ci kaw lan politique bi mitit na ba pare dem na këram dugg génn te loo xam ne dalay jële kaw doo ko foog fenn doo ko xalaat fenn ndax lañ ñu faat ko alalu àdduna tax ñu faat ko walla noonoo gi nekk ci politik bi metti na tamit nañ ko bàyyi xel àdduna bii dëkkuñu fi dañ fi jaar rek après dañuy ñibbi fi mu ne ku fi nekk da ngay bu di fees ngay dem waaye ku sañoon boy root di soj ci sa ndaa ndox ma ngi def ku dem mu leer la ni yow fa nga jëm da nga fa ñeme waaye nii ñu nekk ci bi rafetul di fat ay bakkan te ñu ci bari jigéen ñi lañ koy def ñañ ñoo leen koy def te ñoo bàyyi kii rey ki ko yeyoo rek di ko def kenn bañ a yàkkamti te xam ni wiiri wiiri jaari ndaari ku nekk am nga sa bis ku nekk am nga sa heure ku nekk am nga sa waxtu te bu yëgsee doo ci faat simili doo ko ci romb toujours ñu dégg ñu ne ko romb sa bés sa deewi ñaaw waaye suñu boroom heure bi mu bind ak waxtu wi si jotee mënoo fexe ba romb ko ndax loolu defe naa moo ñaale nañ ko bu yàgg naat laata ñu ñëw ci kaw suuf waaye su fekkente ni dañoo bëgg alalu àdduna ba tax ñuy faat bakkan yi ci loo xam ne yaa ngi koy faat xamoo ndax di nga jot ci alal ji walla déet wala xamoo ndax boo jëlee alal ji dinga ko lekk mu rees wala déet yow lépp looy def risque la mais doo xalaat suñu borom la tax nga jël paaka jam la tax nga jël ciseau jam n'importe n'importe quel boo xam ne leer na la soo ko jamee dinga nga dina ñàkk ba kanam nga daal di ko koy def ñaaw na ñaaw na trop te léeg-léeg olof baat bi muy wax du ma ci neex mooy paaka bare leen di sa waaye koy taas jox la te muy waxi dëgg léeg-léeg nit rey la ba pare suñu paree ba gëstu ko am na loo leen bokk ngay bañ lu ñaaw walla say mbokk di bañ ñaaw bàyyi mu sedd suñ la jëlee yóbbu la ca kaso ba su fekkee boroom loxo bu gudd la bralon la am du fa yàgg def na la muy def génn nekkaat nag fii di defaat lu ko neex ak di wane ni rey naa ko dara fekkuma ci fii la la dara fekkul ci kaw àdduna fii la la dara fekkul ci kaw suuf waaye bu ëllëgee boo jàkkaarloog suñu borom di nga xam ndax dara fekk na la ci walla déet defe naa ni ba muy bind bakkan kenn fekkewu ko kenn dimbaliwu ko kenn wutalu ko benn outil jox ko ni ko am maa la ko jàppale ci bakkan bii ngay bind lépp moo ko defal boppam ci secret boppam kon ma defa ni booy tiim nit di ko rey war nga koo xalaat bu baax a baax a baax man nee naa leen kiy jël nit jam deret genn walangaan danga xamul ndax suñu borom toujours nga gis ku ñu fi ku mu faat te dara du génn ci moom nga xam ni moom rek moo ko yayoo moom rek moo ko moom moom moom bakkan moo ñu ko jox teg ñu ci kaw àdduna ni nañ ko jaamu ku mënta jubal à 100 pour cent yi nga la waay nga def 90 pour cent yi sax nga am ko ndax boo liggéey boo demee nga xam looy wax am na ci solo waaye nii ñu jàppee àdduna ñu bàyyi bu élection yu jub see rek faat bi commencé ray bii commencé ci loo xam ne doo ko teg ci yoon mukk mukk mukk lu la neex rek ngay def sa naf su bakkan rek ngay topp jàpp nit ñi di rey jàpp nit ñi di sonal léeg-léeg nga teg nit laago boo xam ne du xam fan la koy yenni ko nee naa leen su politique bi jotee marabu yi macha allah dañuy am xaalis parce que xam nañ ni ku nekk yaa ngi wut loo faagagale sa moroom te léeg-léeg ngeen bokk même parti benn parti mais du tee danga koy sonal di xëccoog moom loo xam ne bu ngeen ko amee ci kenn ngeen ko yóbbu la ngalawaay bu ñu rafetaloon soow mi duggee ko marché mooy gën waaye ñun daal defe naa ne doy na waar torop torop torop torop torop ma bëgg ngeen xam ni faat bakkan kenn rek moo ko yelloo muy suñu borom ki nga xam ni moo ko jox ñu ko wàcc ñu ci ko suuf ne nañ ko jaamu waaye tee ñu koo jaamu jaamu bu sel jaamu bu rafet waaye nii ñu koy bëgg a jaamoo du noonu de te fii loo fi def bu ëllëgee di nga ko lijjanti ak moom benn gënta for nag faat bakkan faat bakkan boo ëllëgee boo yeggee mun la delloo ko ruu gi ma ko joxoon fan nga jëm foo jëlee ruu danga am ruu amuloo ko ndax yow sax moomuloo ko sa bos bi nga àndaloon ba faat ci nit moomuloo kon boo ëllëgee bu la nee saxalal ma kii ruu gi ma ko joxoon yow fan nga jëm mu ñuy defa ci yenn ñaawteef yi nañuy xalaat suñu borom bu baax baax man dañoo defa ne ëllëg dafa yàgg ëllëg yàggul xaw kañ la yàggoon mais dootul léegi yàggatul ku yabu xam ni yàggatul lii ñu mën waaye danga daan dégg dee tey soo ko déggaan di nga toog presque lu mat at door koo déggaan dee su mësaan am xale yu bari dañuy ragal dem ci armeer ya même jigéen ñi sax néew néeg ba néew ba nekkoon dañ fay ragal a dugg duñ ko sax ñemee kër ga sax am na ñoo xam dañ fay ragal a fanaan mais léegi néew day dee ci kawlal nga wàcc ku tëddal ci kawlal boobu kon nga xam ne àdduna jeex na teeñoo def ndànk xam ni jarta yàkkamti yow léegi soo faate ni ndax alal jooju nga ko faate nga ñëw doo ci def lu neex suñu borom mënul sax nekk ndax mënoo ci yóbbu nit màkk ba mu lew mënoo cee tabax jàkk ba mu lew mënoo cee faj soxla ba mu lew mënoo cee dënd nit ordonnance di sàkku suñu borom ba am ko ci ndax nanga ko amee def leen ndànk jeexagul àdduna jeexagul gaali ci des bariwul mais jeexagul na leen def ndànk te xam wiiri wiiri jaari ndaari réccu nag du wees tuubit du wees ku ko mën nga def ko léegi waaye nii ñu nekk ci àdduna nii ñu nekk ci kaw suuf rafetul ñaaw na lool lool lool nit ñi sax ñimeetuñu wallaahi lazim nit ñi ñimeetuñu ci koñ yi nit ñi ñimeetuñu sa biir kër nit ñi ñimeetuñu fenn fenn fenn ndax foo génn defal ne dina la kar am luñ la def effectivement dëgg la dëgg la dangay toog ci sa biir kër sax ñu fekk la fa def la lañ lay def benn gënta bon nag xool nit ki rek een ko jogal ko jaral la nga dugg ci Jel jël sey jundi def ci ngir lan nañ ko nawtal wala na xel mi wëlbatiku wala mu wala lu mu sumbati rek bu mu ag lu mu yaakaar na tas du fi jeex du fi jeex am fi du fi jeex ni ngeen jàppe aduna nak du nonu loo dañ fi jaar pour lan dañuy tukki si tukki si bi boy ñew toujours nga gis ku dem tukki booy ñëw bëgg a yóbbaale sa waa kër sëri ca te booy yóbbu sëri ca lu baax ngay jënd lu baax ngay bëgg a yóbbu sa waa kër waa léegi sooy wuy ji suñu borom defe naa ne war ngaa mën a wut nag lu baax loo xam boo lëggee bu nee la pëkk-pëkk soo jógee dinga fekk lu rafet ci sa kanam fa nga tëdd di xaar ëllëg lu baax moo la fay fekk waaye jàpp sa àdduna fooye ko fooye ko fooye ko ba yow ku la xool sax fitam rëcc mbokk moo am dootul ànd teg sagoom mbokk moo am nga teg ko coono àdduna yaa ngi koy tooñ te alal lim ñu jaral daal man daf ma jaaxal billaahi alal lim mu jaral jaaxal na ma alal li mu jar léegi ci àdduna bii doy na waar torop torop torop torop nañ def ndànk bu dul alal ji sos yi fi nekk léegi tamit bari na da dem fee euh, ca kaso ba gis ñoo xam ne la leen fay dugal dunu yëg dunu tin sos moo leen fa dugal léeg-léeg nga gis nga fekk ku toog sa doom ñëw nuyu ko rek lay seq ak moom dem na ca àll ba ñu def ko lañ lañ koy def mu ñëw sosal ko nga xamante ni xamuk yëgul tinul soo ñëwee ni sa yaay diw mooma violé ànd nga ak moom wut nga certificat médical lu ne nga def ko lépp nag ci kaw àq la parce que boo sosalee nit ki ba ñu tëj ko jiiñ nga ko viol ku ne xam na viol fi ñu toll actuellement ni bu ñu lay tëj ay ati at lañ lay tëj nga jiiñ nit ki viol du yëg du tiñ ñu jël làq ko ca kaso bi xañ ko njabootam xañ kay mbokkam xañ ko ay dëkkam yàqal ko liggéeyam àq baaxul yépp ci kaw àq la nekk parce que faat bakkanu nit yor nga àq mais sos nit kenn du ko sosol waxal liy jëgg te yàlla rekk a tax mais léegi soo demee tribunal ngay xam ni sos am na nga dugg ca kaso bee nga xam ni sos am na léeg nga gis gor gu ñu tëj ba tijj ko wallaahi bu génnee du dundaat sax weer ndax goom gor moo yenn gàcce yi gor moomul yenn def def yi nga def ko ba pare génn ko bàyyi ko ci kaw suuf muy doxaat ne damay dund mënul nekk il faut mu rek jikkoom giir ko war a ngorom def ko noo xam ne dina ko xalaat ba sàngoo suuf toujours nga dégg fi ku ñu tëj ba tijji la weeru yàlla sax du ko toog wuy ji suñu borom xolom jeex na biir kaso ba xolom mel na fa noo xam ne yaakaar woon ci kaw suuf nit dana ko sosol ba ñu tëj ko ci biir kaso bee yaakaarul woon ci kaw suuf nit dana ko wax loo xam ne bu génnee nit ñi dinañ ko ko xoolee ñu bàyyi sos gàddu ak baaxul ku ko def ren ba dewen mu jigle la rek dañ la koo jiiñ te wallahi azim képp ku fi sosal nit ba ñu def ko loo xam ne waruñu ko koo def bala moo sangoo suuf dina ko gis ndax suñu boroom léegi day àtte fii ci kaw suuf fii lay àttee mu leer nañ nañ leen bàyyi sos gàddu ak baaxul àq weesuwul nga fekk nit ki mu toog ci toogaayam nga def ko loo xam ne di ko xañ àddunaam bépp bépp bépp bépp lazim maa ngi ñaanal yàlla képp ku fa dugg caabi féete la ginnaaw te yëgoo tinoo sos rek moo la fa dugal ah yàlla la suñu boroom génne ba tey ñu xam ne ci foofu tamit lu yàlla rëdd sa jë mënoo ko échappé déedéet suñu borom bu ne fii di nga fa jaar rek di nga fa jaar waaye bu fa jaaree soo fa jaaree suñu borom dina xamal ni dëgg gi moom il faut mu def ko ci xeli nit ñi il faut mu def ko ci xolu nit ñi ndax nag boo yàggee ci ku suuf yàgg dëkk ki nit sa jikko ñépp xam ko loo def dinañ ko xam loo deful dinañ ko xam waaye kaso bee ñi fa dugguta sos rek bàyyi leen fa bari na du xaaj du jeex bëgg ngeen dellu ginnaaw xam ne àdduna sos yoru ko ak boo ko gàddulee nit di ko layoo di nga ko gis wi ba pare bu ëllëgee di nga ko layoo ak borom nañ leen bàyyi xel loolu bu baax a baax ma dugg tuuti ci xale yu góor yi nga xam ni euh, dañoo ñëw liggéey si bàyyi seen yaay ak seeni soxna ca dëkk ba ñëw fii di caaxaan damaa defe ne xanaa même boo fa bàyyiwul sax sa soxna bàyyi fa sa ndey ak sa baay di daw loo leen jox xanaa boo ñëwee fii war ngaa mën a am fulla gu toll ni doo foyee la la sa yàlla di sa wërsëgale doo foyee la nga am di ko yàqate di bàyyi sa ndey ak sa baay ña la jur ci farasas yàlla ak sunas muhammad yar la ba nga màgg pattalul la làggalul la nga mën métier war koo wuti si nga ñëw ni damay daani sama doole ñëw di daan sa doole pare loo am foye ko duñ la gisal dara duñ la déggal dara soo leen di yónnee da nga toog ba mu neex la nga cofus tuut yónnee leen ko boo tanaan ko bi neexul ngeen bàyyi loolu kenn naxul kenn ku nekk sa bopp ngay nax loo def defa muus moo tax nga def ko ak ndof moo tax nga def ko ndax defe naa ni deretu bopp du mooy magum boroom ñu xam loolu bu baax baax soy liggéey ngi dimbali say wajur del fàttaliku ñi nga bayyi gannaaw fo yoru ko So bëggee teral say wajur ta fas jom am yene gi bo ñëwee ne damay daani sama doole suñu borom bu la ubilé buntu xéewal fàttaliku Nak nak ndax ñooñu gis nga len leen fàttalikoo bayyi len xel jarul ngay tak téré jarul ngay naan safara jarul dara señ ñaan rek day duy sëkk ak barké señ ñaan mën na léeg nga booy boole ci bàyyi sa soxna ca kër ga ak sa njaboot benn doom njaboot la waxatuma ak ñaar doom ak ñett bàyyi ko ñoom ñuy jóge ko daan yow nga nekk fii loo liggéey dem caaxaane ko loo liggéey dem caaxaane ko yaa ngi nax sa bopp naxoo kenn sa bopp ngay nax am na ñoo xam ne tabaski ba tabaski lañuy dem ca dëkk ba pour lan pour lan lan moo ko fi jar yow koy foo liggéey ba am ñaari weer ñett jëlal la nga am dawal ca say bokk dawal jox sa yaay dawal jox sa sa soxna bu baax a baax waaye bàyyi leen ñëw fii di caaxaan dafa ne caaxaan moo ko caaxaan yoru ko gis nga ku bëgg dara foog nga def tara nit day am fulla ak fayda li la tax a jóg nga def ko ci fulla ak fayda moo gën xale yu góor yi ngeen baal man am naa bu góor ba may wax ñépp laay généralise sama doom bu góor laa njëkke pour dama bëgg képp ko xamni wut rek mo la taxa a nga bayyi sa nday ak sa bay ñu tok di la xaar bu tass seen yaakar kon yàlla bu yalla tas benn yaakar may nuy bu baaxa baax euh, la DG Pape Doumbouya di ko ñaanal yàlla yalla na ko may guddu fan ak wér ak wérle may nuy sama cameraman euh, Rama tey ma macha allah dafa am kumu andal mi sama chamé ñu baaxa baax ñu leen di may ñaan ci kàttanu yalla ak mbaaxam ñu koy wax dalal jamaa na dal jàmm lim fi bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu borom moo talil bu baax a baax a baax di la wax ni fii nag la porte et grandement ouverte fii mooy Prestige Thiès le DG Pape Doumbouya ñëpp la ubbil xolam ñëpp la ubbil boppam ku baax la ku ñime jaboot la teg ci moo tax ku ñu ubbil la boppam maa ngi ñaan Pape ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak weeru màggal gi nu nekk lepp lo sumbu yalla ko suñu borom sotala ci katanam ak baxam ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam may nuy bu baax euh, sofi Saw kooku nga xamni luma def mi ngi ci combat bu may door rek mi ngi ci moom mam Jaara Ñang ak Mohamed macha allah may nuy bu baax baax ki nga xamanteni ni Serigne Modou ndjay waye ma ngi nuy musa mbay ki nga xamni jox ravitaillement may nuy sama yaay di baax di euh, di ko wax yalla yalla feug bopam mo bepp yaay ak kep ko tawat ma ngi lay ñaanal yalla yalla yalla feug sa bop may ñaanal yalla ma mag jooju nga xam ne mooy Faatu ngoom nga xam ni man aw ma jot moo nekk ci sama yaay bàyyi këram ub ko ñëw toog ci sama yaay di ma ko wattul yal na ko yàlla may gudd fan ak wér ak wérle maa ngi ñaanal nag sama rakk yépp bàyyiwuma kenn maa ngi ñaanal ñëpp may ñaanal bu baax a baax ki nga xamante ni mooy sama yaay ji ajaratu Fana si si sama yaay ajaratu ñaay jaw waaye sama yaay jeewoo Sarr ci HLM de Dakar Adja Ndeye Issa Diagne waaye Gomis yaay jooju nga xam ne dox ndànk wax ndànk rek lay def yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér ak wér ne may nuyu bu baax sama xarit Yacine Diop Fana Cissé maa ngi nuyu bu baax a baax naa ñëpp gërëm naa kenn ku ma tudd la bés a ngi ñëw ca kanam dana la tudd insha allahu rabbi may nuyu bu baax samay imam bay ca jàkka Alpha Combaan ñu koy wax imam Pape May imam Seydou Ndiaye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñu nga yooyu ñooñu nga xam ne yàllaa leen fa teg te yàlla rek moo tax ngeen di def imam Sarr fii ci Petit Thialy ñu ngi koy koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yàggal ci suñu kanam bu baax a baax ndax imaam day mat la ko fi yàlla tege ku xew leen nga jóg xeebaloo kenn bisam man de imaam yi ma jot a xam ci kaw suuf noonu la leen yàlla defar maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla may gudd fan ak wér ak wér le précise